Allô, oui, ma bestie. Oui, ma chérie, ça va Ça va bien, déjà. Ça va, alhamdulillah. Ah, Je bestie. Ouais. Moi, mon même problème. Ouais, le xew man de Je tu Je Ouais. que, Je de plaisir mais xaw ma que Je que rek. yow di nga jot neex-neex mais teewul moom bu paree ci yow rek doo da ngay daanu wala doo daanu. man dinaa daanu waaye su paree xaw ma mbal. foog nga mballuwaat pour nga am lu la neex. waaw pourquoi. damaa xam. ah peut-être dangaa doyalul rek. sa jëkkër xanaa day gaaw nan meelu. dindi. ma chérie. waaw dindil haut-parleur bi nga def. defuma la haut-parleur bi. ah ok parce que dama déggoon baat ci suuf. ma chérie ah, ok dama ne sa jëkkër comme dafa gaaw a daanu moo tax dalaa joxul danga dangaa doyalul ci laalante bi loolu rek. moo ko waral euh, sa jëkkër yow waxoo léegi dafay gaaw a daanu ñaata temps lay def. allo. ma chérie. cinq euh. minutes kay góor bu ko def daa gaaw a daanu ma cinq minutes. Ah, mais man xam nga dafa doon euh, damaa gis loolu ma yaakaar mais dinañ def ay préliminaire mhm. après ba ma defee recherche euh, yooyu noonu am naa dama am sama benn xarit boo xam ne dafa yor ay genre groupe def ay astuces. Mhm. ba ma laajee ne ma bu fekkee temps la c'est ci góor. loolu de xam nga ñen ñoo koy wax internet bi boo demee ñu naan la moyen bi moyen bi mooy cinq minutes loolu Google nga koy gis yooyu moyenne bi cinq minutes mais cinq minutes ma chérie munul doyal loo jigéen cinq minutes ci laalante dugal génnee munu cee doyal loo jigéen jigéen bu ci daanu kon femme fontaine la wala dafa yor vibro moo tax mu daanu waaw femme fontaine nga moo tax te femme fontaine il faut góor gu caga góor gu mën yàgg ci lal bi góor gu mën a laalante moo mën a doyaloo femme fontaine. ok. mba yow da tàmm mbalu xanaa. tàmm naa ko waaw loolu la danga cee addict te sa jëkkër mënu laa mënu mënu mënu gunge yow da nga ci yoon bi. góor gi nga yor moo moo moo mënut a nekk genre jigéen yu mel ni yow yow il faut góor gu caga góor gu mën a xam même bu fekkee dafa gaaw a daanu mais bu mën a xam fu mu lay kii yóbbu la fu sori daal mun na la daane daane laat la avant mu lay soq am jom mais moom xaa du ñëwaat deuxième round. non non moom nag benn rek léwal rek cinq minutes la lay may daal di lay war ay xotti sa jëkkër mënu laa yoon bi danga cee wéet ma chérie te di nga yàgg mballu merci Aïcha sa mballu bi du arrêté non si parce que yow da nga femme gis nga sa fam, genre jigéen ñi nii femme femme fontaine mooy ñoo xamante ne loo leen jox doyul ñoom ñooy ñoo xamante ne merci F dañuy daanu daanu lu ñu daanu daanu foo leen yóbbuwaat ñu demaat ñoom ñooy ñoo xam dañuy daanu jugaat daanu jugaat daanu di continuer mun nañ daanu nga leen di laal ñuy continuer waat demaat ak yow te ñoon la ñi danga leen di laal ba ñu saw di def di def yu dara jarul te foo leen andiwaat ñu de ñu gungewaat la foo leen yóbbu ñu dem ku Femme Fontaine il faut nga dajee góor gu mën góor gu mën a yàgg ca lal góor gu caga mën jigéen yow jooju nga mën a nekkal mais sa jëkkër c'est dommage suñu defee kii sax suñu defee préliminaire sax dama si daanu mais après su waree ñëw pour pour dugal pour sopp sax dama yëgaat sama bopp day mel ne ah, euh, moom mooy yéen seeni neex-neex du doy yéen seen neex-neex du doy mais c'est dommage jëkkër ji nga yoon dina la tàmmaloo mballu ci erreur parce que joxu la li nga yelloo ah, parfois dama naan ko li may jox nii doy ma mu naan ma bu la doy. nga nga game a xool parce que man ah ma chérie est-ce que doo ut vibromasseur rek man de xam naa ne foofu laay mujjee utal loolu moo la mën a jàppale ya, de parce que mballu bi ngay be bon vibromasseur mballu aussi mais ah ku amul nday nàmp maam moo gën njaaloo benn waaw kay mu ngi noonu wax nga Voilà, ma chérie. Merci pour la De rien, ma chérie, de rien. Ah, comme nous naa la nga débrouiller kay moom du machine kay. Ah, débrouillé, système D. <laughs> Wala allô? Oui, ma chérie, ça va? Ça va, de alhamdulillah. wa Nouvelle mariée, là. wa nouvelle mariée là ok. mais maanaam euh, man damaa xamul lan mooy daanu wala man maa dul maa comprendre daal. ñaata temps mariage euh, euh, sa jëkkër ba mu la jëlee xale nga. waaw. d'accord léegi yow lan nga dul yëg exactement doo yëg neex neex sa jëkkër koo ko sàkk yàlla waaye yàlla ko saako léegi yow bu lay da ngeen di préliminaire yi ñaar. waaw. yaa ngi jot neex neex ci préliminaire. waaw mais moom bu bu kiiwee daf daf naan ma ndax ndox mi buy yëg buy ñëw di nga ko yëg mais man du ma yëg dara des fois du ma fenn sax ma ne ko waaw mais du ma yëg dara buy du ma sentir dara. sa jëkkër est-ce que mën na ma chérie sa jëkkër foog nga ne mën na affaire yi laalante bi day yàgg non mën naa yàgg mën naa bañ yàgg xaw ma lii moom sama première ma ci loolu kii d'accord mais sa jëkkër buy dugal awraam bi yaa ngi mballu sa bopp ma chérie non non kon yow sa jëkkër bon xale nga en plus xanaa ah, ah, sa bàjjen yeddu la yeddu la yow kenn yeddu la moo tax xamoo lii moo bon ci bu fekkee célibataire nga xamoo laalante ñun dañu naan à chaque fois man dama naan célibataire del jàng laalante c'est pas parce que danga ko jàng que dangay dem defi lu bon bu la neexee nga téye sa bopp ku joxe sa bopp yow la neex dangay jàng laalante xam nu ñuy sa nu ñuy joxee neex neex góor yow bu dee góor nga nga xam nu ñuy joxee neex-neex jigéen bu ko defee boo duggee ci biir néeg bi nga bañ a réer Sénégal kenn du la jàngal nooy laalanteel c'est rare sa yaay jàngal la ko wala sa sa yaay moom waxale mo c'est rare sa mag jàngal la ko wala sa bàjjen wala kii que ce soit kenn du la ko jàngal yow dangay dugg rek ngay rërli rërli foofu te doo xam dara. bëgg nañ nga nga téye sa bopp c'est très bien tu bien fait. mais dangay jàng balaa ngay dugg di di di di di réer ci sëy bi yii lay andi yii lay andi sa jëkkër naan la am nga neex ne nga kay fen naan ko dee nii lay continuer fii dix ans vingt nga nga nga nga nga nul nii ngay laajte sama année yi fuñ dugg te doo xam luy daanu doo xam luy bànneexu sëy doo xam luy neex neexu biir nekk rien du tout yii lay andi ma chérie dama ne la gis nga produit yi ma doon euh, yi may euh, yi ma def si sama chaîne produit yi may kii nii yaa ngi fan yaa ngi Sénégal. jëlal numéro bi nga jël euh, produit yi may kii surtout lubrifiant bi yaa ngi diw lubrifiant si sa si sa aana bu sa jëkkër di soog. non non. del utiliser lubrifiant jëndal lubrifiant boobu ma publier si sama chaîne jënd ko. nga koy def ci eh. awra monsieur ba mu tooy di ko def ci sa awra ba mu tooy walla nga jënd gis nga gel orgasme bi gis nga gel bi mm-hmm. bii nii pour neex-neex la pour bànneexu biir néeg la mun nga ko diw sa kilikili bi diwaale ko ci sa aana bi sa jëkkër buy soq nga laal ko ci ci awraam bi ko defee bu dugalee moom ci boppam mooy dugal gel bi ci biir ci sa biir aana mm. di di am soqante bi lu am jom te produit bi tam dee ko jënd joy si bi dee ko jël dalay dalay dalay tax ngay am envie laalante parce que yow nga amul envie je sais pas si sa borom kër dalay Gagne, wala affaire bi day saf wala je sais pas. Mm, des fois day metti. day metti motax tax te lu metti yow dal préliminaire di nga yëg mais bu awra duggé falay lay n'est-ce pas. Mm-hmm. waaw mais awra bi nag gis nga buy dugg boo laalee si lubrifiant del mballu si sa ana bi del mballu sa ana bi ma chérie del mallu sa bopp bu yaa sa kër am ngeen complicité waaw wala déedéet. waaw. si bi euh, euh, kii bi mun nga utiliser ay kii du ko déranger. moom nag ba bëggul kii yu bari de. waaw comme bëggu ko lu bari léegi lubrifiant bi moom mun nga ko jël parce que lubrifiant bi day tax muy glisser. waa waaw day tax muy glisser day jël lubrifiant bi mu comme sa jëkkër bëgguma nga jënd produit yi comme sa jëkkër bëgg ko mais produit pro problème bi mooy boo koy utiliser sa jëkkër waru koo xam ne naa leen jéeg ji dee leen am seeni astuce bopp dee leen am seen astuce yoo xam ne da ngeen koy def sa borom kër du ko gis c'est yow doo tooy xam nga sa borom kër comme affaire bi da lay gaañ du coup koy xalaat da ngay xalaat gaañ-gaañ bi. Mm-hmm. loolooy waral sa aana bi di wow. parce que saf-saf bi ci ngay concentré wu mais gis nga jëlal biini nii septième bi demal nga jënd ji ko parce que lii boo ko defee sa borom kër du ko gis 30 minutes avant ngay laalante wooteel ci numéro Sénégal bi nga jënd ko 30 minutes avant ngay laalante nga koy dugal si sa biir aana septième ciel bi danga koy raxas rek dugal ko sa aana gis nga sa borom kër buy soq soqante bi yëpp da ngay gis sa aana bi du wow affaire bi day glissé début ba fin ba pare lay jox envie lay jox envie nga laalante di nga gis ne saf-saf bi dina wàññiku parce que foofu day glisser dootul woo ok en tout cas ba rapport ba laalante bi jeex voilà ma chérie. Mhm. de rien saf-saf moom joxul kenn neex-neex moom wax dëgg yàlla ñaari ànduñu allo.